boo xam ne bisu borom daaru la sunu bisa ndax ko xam borom daaru moxti ni mu taxee woon ci sëñ Touba nga xam ne moom dundam da ko jëloon yamale ko ci sëñ Touba dem ba yëg ne yàlla bindu ko bindu ruwam ngir mu war a taxawu sëriñ tubaa ci kaw suuf loolu la borom daaru moxti gëmoon taxawee sëñ Touba kon tey bu ñu demee ba toll soo xam ne ay sëtam ñooy teew di ko màggalaat di sargalaat loola loola lu war la sëriñ Bara it bis di bisam ndax ku ne xam na ne bu jamono masaan dem nawet am cee ay jamono booba médecine demewul noonu faj mi demewul noonu moo daan wër moom sëñ Baara di bind ci tànki nit ñi di ñaanal nit ñi di defal ay fekke déwén kon bu réew mi tolloo fii toll ci tawat kon bu fekkee ne tuddi nañ ko bis am nañu rafet njortu ne bis ñëw na fi war a ñëwee ñaan yàlla yàlla saafara li am ci réew mi yàlla def ci jàmm loolu rek lañuy ñuy ñaan ci bis bi borom bis bi nag di sëñ Basiru day sanu xarit di sama lépp moom jikkoom rek tax na lu mu nekk nu fekki ko ndax ah, jikko ju rafet la muy guddi muy bëccëg mu ngi ñuy nemmiku lu nu xewle kenn du ko fa jiitu di ku yaatal nag bi muy taxawal sëñ Baara di ko màggalal booba yàgg na ba ñu tey ji ñu def quatorzième édition loolu passif la ci moom njàmbarte la ci moom dañu koy dolli di ko ñaax di ko encouragé di ànd ak moom nag ci li mu nekk ndax nit ku baax la jërë ngeen jëf di ñaan yàlla nag seen des média bi di sunu télé bi sunu borom def ko mu nekk teeñeer nag boo xam ne ci àddina day sori lool jërë ngeen jëf